wasalaatu wasalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin sayidina moolana muhammadin alamin wa ala alihi wa ashaabihi altayibin altahirin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawm ddin bokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw nu yóobi ñu ngi leen di ziyaara ci bisub àjjuma bi ñaan sunu boroom nangul nu mboolem suñuy jëf yu baax te jéggal ñu boole suñu rëcc rëcc di ko ñaan mu yàggal kilifa gu mag yi ci suñu kanam dëgëral ko wéral ko kàttanal ko ba li mu yéene lépp ci liggéeyu lislaam bi liggéeyu sëriñ bi mu def ci lu kawe te lépp yàlla nañ ko ànd ak moom ci nam gën a rafete gannaaw loolu waxtaanu tey wi dafa jëm ci tomb bu am solo ci dunduk doomu aadama rawatina muy ab jullit ndax jeexit ji muy am ci melaw nit ki ak ku doxinam ak jëfam ci ak aw nekkinam loola moo di gëm àllaaxira gëm ne àdduna ji ñu nekk day jeex yàlla tukkal ko tukkal àdduna jële fi ñu fi nekk ñëpp ginnaaw ba mu dekkalaat ñëpp teewal leen ci benn barab ñépp taxaw ci kanamam mu lijjanti seeni mbir wan leen seeni jëf fay leen ko loolu gëm ne loolu lu am la lu wér la loolu mooy gëm alaxira loolu nag dafa nekk lu am solo ndax xam ne ne ponki gëm maanaam gëm gëm balaa mat balaa wér dana am juróom-benn mbir yoo xam ni ki da koy gëm gëm jëmmi yàlla yàlla buur la bu am mooy buur di borom ko am la jëmm ju am la yoo xam ne melo yi mënta ñàkk ci moom yëpp mu saxal ne melo lu sax ci jëmmam la te lu muy lu muy melowoo saa su nekk la te musu musu ko ñàkk melowoo waaye muy xeetu mat mi ngi ci moom waaye lépp lu di manqué sori na ko yi jomb ci moom yëpp mu jombale ko ci yi nga xam ne lu man lu mën a lu aju ci moom da te loo xam def gaa ñàkk gaa def ñooyam ci moom lépp mu saxal ko loolu mooy gëm yàlla gëm ne yàlla am nay malaaka yoo xam ne kenn xamul nuñ toll seen lim ku dul moom te ñoom ñëpp ay soldaaram lañ yoo xam ne ñenn ci nekk day ne féetale ci ab liggéey bu mu leen di liggéeyloo gëm ne itam yàlla wàcce na ay téere yoo xam ne la ca nekk moo ko wax di ay ndigal aki tere aki atte aki xabaar gëm ne téere yooyu ci yàlla la bàyyi ko te lépp lu ci nekk dëgg la gëmit ne yàlla yónni na ay ndaw ay yonent ñu ci biir jaam ñi yónni ci wa ci nit ñi ak jinne yi ñu jottali euh, ndigal yi yàlla yi gëmit ne bis dana ñëw boo xam ne yàlla dana tukkal àdduna dekkal ñëpp it ginnaaw ba ñu teew ci kanamam mu xisaab leen fay leen seeni jëf gëm ne bis boobu luy ñëw la lañ ca wax yépp ci ay xabaar ak i mbir nga dëggal ne lu am la gëmit ne lépp lu am yàlla moo ko dogal muy aw yiw mu di safaan muy lu neex muy lu naqari muy xéewal muy muy muy tiis lépp mi ngi amee ci coobareem ak dogalam kon juróom-benni yii la ñuy tuddee ponki gëm kon gëm àllaaxira benn ponk la ci ponki gëm yi waaye ponk bu dëgër nag la bu dëgër lool boo xam ne léeg-léeg sax bu suñu borom di tudd ponki gëm yi da koy léeg-léeg moom rek lay doyloo tudd ko moom rek sax bàyyi yeneen ponk yi ko jiitu ak yi ci topp ngir xam ne ku ko gëm te muy dëgg rek ya ko jiitu ak ya ci topp yépp dana da nga ko dugalaale léeg-léeg rek gëm yàlla jëm jëm yàlla gëm jëmmi yàlla ak gëm bis bis ba rek bis alaxira rek lay lay ñaari ponk yi rek lay tudd yam ca ngir xam ne ku gëm jëm yàlla gëm bis penc yana ci diggante ba ci ay yu ñu war a gëm dana ko dana ko yóbbaale kon doyloo gi ko suñu borom di doyloo di ko tudd rek yem ca léeg-léeg maam boole ko gëm yàlla rek yem ca te ponk yi di juróom-benn loolu day wane solo si nga xam ne gëm àllaaxira am na ko ci biir ponki yi lislaam yi wàccaay bi mu ci am waaye gëm àllaaxira nekk loo xam ne eh, dafa bokk ci melo yi ñi gëm yàlla te seenu gëm dëgër te wér ñi gëm yàlla te seenu gëm dëgër wér bu suñu borom dee tudd seeni melo ci alxuraan di ko tënk faw mu tuddaale ca am yaqiin ak wóolu ci ne àllaaxira dana ñëw te yaqiin jooju ak wóolu googu di tax yow ci sa bopp yow mim na ci yow ngay xool li ngay def ak wax ngir wóor ngir wóolu gum lay wóolu lépp loo jëf suñu borom dana la ko fay ba ëllëgee ndax gëm nga ne ëllëg day ñëw te lépp loo jëf ñu fay la ko wóolu googu da koy boole ci melokaani way gëm ñi moo tax am na fu muy طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون mu ne alquran ji ak téere bu leer bi ay kiimaan la yu bàyyi ko fa yàlla di ay waxam wàcce ko ci ab yonentam mu nekk ak njub waaye nekk itam xabaar yi mbégte làmboo ay xabaar yi mbégte làmboo ak njub làmboo ay xabaar yi mbégte ci ñi nga xam ñoo gëm way gëm ñi nag mu ne mooy ñi nga xam ne dañuy julli dañuy taxawal julli di ko defe nañ ko santaane di ca góorgóorlu di ca farlu waaye di joxe asaka ci seeni alal waaye am ak wóolu ci ne àllaaxira day ñëw kon melo ñetti melo la wax fii na way gëm ñi yi day ne ci ñoom waaye gis nga boole na ci wóolu amug wóolu ci ne alaxira luy ñëw la mu bokk itam ci melo yi way ragal yàlla ñi moo tax alif laam miim dalika kitaabu la rayba fii hudan lil muttaqin alladina yuminuuna bi xaybi wa yuqimuuna alsolata wa mimma razaqnahum yunfiquun walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil axirati hum yuqinoun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun foofu way ragal yàlla ñi melokaan yi leen seen borom tuddal bokk na ci dañuy amuk dañuy gëm kumpa dañuy gëm lu ñu tegul seen bët mel ni jëmm yàlla ji ak i meloom ak la ñëwagul muy ëllëg ak la cay xew ak li nga xam ne yàlla sàkk na ko te teguñ ci bët asamaan ak malaaka ak ya demee noonu yëpp euh, te itam dañuy julli julli juróom di gëm téere yi yàlla wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi muy alquran gëm téere ya ko jiitu woon mu wàcce woon ko yonent ya ko jiitu woon waaye nag dañuy am ak wóolu ci ne yàlla dana taxawal bis teewal jaam ñëpp atte euh, xisaab leen fay leen seen i mu ne ñi gëm ñi mel nii mooy ñi ragal yàlla te ñoo ñu nekk ci njub te ñoo ñu nar a taxe ëllëg fii kon melo yi ñu ragal yàlla boole na ci amug wóolu ci ne àllaaxira day ñëw loolu dana loolu nit mënta ragal yàlla teg wóolu googu nekkul ci moom buñ demee ci ñi nga xam ne dañuy rafetal way sellal yi ñoom it bam le balesin bon di wax seeni melo boole na ci ne dañuy amug wóolu ci ne àllaaxira day ñëw alif laam tilka ayatul kitaabi alxakim hudan wa rahmatan lil muhsinin allazina yuqimuna salata wa yuutuna zakata wa hum bil axirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun mu ne alquran jiide ci yàlla bàyyi ko di ay firnde ak yu leer naññ ak i tegtal wane dëgg ak njub mu di ak njub kon ak yërmande ci ñi nga xam ne dañuy rafetal dañuy sallal ñuy def la gën a baax ñooña mooy ñi nga xam ne dañuy julli di joxe asaka waaye dañuy amuk wóolu ci ne àllaaxira dana ñëw gis nga kon fu mu tuddee ñi ragal yàlla di wax seeni melo mbaa way gëm ñi di wax seeni melo waaye mbaa way rafetal waa li melo ya jeex te tuddaale ci amuk wóolu ci ne àllaaxira dana ñëw kon loolu moom dafa nekk lu mënta ñàkk ci aji gëm mu gëm ko te am ceeg wóolu wóor ko wóor ko ci wóor ko bu baax a baax ne luy am lu am la lu wér la lu dëggu la du ay lépp du ay lu peen gëm gëm googu nag bu saxee ci nit ki te dëgër ca day am lu muy waral ci moom day am doxin wum koy wum koy wum koy eh, doxeloo moo tax bu ñu ci alquran dellu ci xadis dañuy gis fu bari sunu borom di wax ku gëm yàlla gëm bis mu joonu mu war mel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 يسودون محمدا رسولا أسودون محمدا رسولا أسودون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 محمد رسول kon bu ñu delloo ci alquran wala ñu delloo ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy fekk fu bari sunu boroom ak yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ne képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bis bu mujj ba am ci wóolu wóolu ne dang ci àgg te la fay xew da nga ci jot sa war ngaa def nangam ak nangam wala war ngaa mel nangam ak nangam bokk na ci suñu borom di wax ne faman kaana yarju liqaa rabbihi falyacmal amalan saalixan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada képp koo xam ne wóor na la ne danga nga faatu yàlla dekkal la nga jóge ci sa bàmmeel taxaw ci kanamam bis penc koo xam ne gëm nga loolu mu wóor la nga am ci wóolu ne lii du jaas war nga ko waajal ba boo demee doo am jafe-jafe na ngay def nag bu dafa am jafe-jafe mooy dangay sax ci jëf ju baax da jëf da sax ci def jëf ju baax te sellal ko ba nga xam ne jëf yi ngay def doo ci boole kenn ku dul yàlla doo ca laxas lenn lu dul sàkku ngërëm tuyaabay boroom borom ak ngërëmam kon da ngay jëf jëf ju baax te sellal ko waaw wéetal yàlla ci jaamu ba doo ko booleeg dara ni nga ko wéetale ci pas-pas kon ku gëm yàlla gëm bis bu mujj ba am ci woolu kooku day day nekk jëfkatu lu baax lu baax rek lay jëf te da koy sellal nga xam na ne bu jëfee lu baax ca lay amee bay ëllëg dëkk ci këru xéewal ga bu ko yàlla nangulee bu ko jëfee te sellut it bu ko yàlla nangu du am njariñ moo tax kon day jëf-jëf ju baax ngir mu am payuk payuk aljanna ak xéewal waaye da koy sellal ngir bëgg yàlla nangu ko te xam na ne bu defut loolu bu defee jëfi safaan ca safaan ba la jëm te loola du gën ci moom léegi nag bu ko wóoree ne noonu lay demee day moytu bu baax di def lu baax tey bàyyi lu bon waaw loolu kon bokk na ci melokaani ku gëm yàlla moom kon day day sax ci jë jëf lu baax te di ko sellal mu wax ne itam képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bis bu mujj ba dana da nga te am ci wóolu danga nga def yonante bi sallallahu alayhi muy soroy teef ngay topp aw yoonam topp diineem topp sunnaam roy ay jikkoom ak i melokaanam sa kem kàttan di jéem a jege aw meloom te it di fàttaliku yàlla foo tollu ci sam xel di ko fàttaliku itam ci say sa làmmiñ ak say jëf lu baree bare walakum fi rasulillahi iswatun xasana liman kaana yarju llaha yawma alaxira wa zakara llaha kasira kon ku gëm bis bu mujj ba te am ci wóolu danga nangoo def yonent bi muy soroy teef nga teg ko ci sa kanam di topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem tënku ci diineem roy sunnaam di roy ay jikkoom yu rafet jikkoom yi nga xam ne lépp rafet nga di ko roy eh, te sax ci di fàttaliku yàlla foo toll lu baree bari eh, kon buñ demee itam ci xadis dañuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu baree bari danaan ku gëm yàlla gëm bis mujj ba nañuy def nangam ak nangam am na ci fu muy wax ne man yu yuminu billahi wal yawmil axiri fal yaqul xayran aw liyasmut ku gëm yàlla gëm bis bu mujj ba gëm ne dana taxawal bis penc ku ne mu fay la jëf sa jëf ak say wax na la jàpp aw làmmiñam di ca wax lu baax te fu lu baax bu ca noppee mu noppi bañ a wax ab safaan bañ a wax ay neen ndax lu baax loolu moo koy may mooy tax ñu fay ko aw yu bu ëllëgee mu jariñoo ko waaye noppi ga moo koy musal ci ab safaan wala wala dundu neen euh, ba bu ëllëgee du am jafe-jafe ci li daa wax ci aw làmmiñam mu wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falaa yuzi jaarahu gëm yàlla gëm bu bis bu mujj ba bu mu lor dëkkandoom day xam ne bu loree dëkkandoom fii ci àdduna boo ëllëgee lor joojee dana ko julal lor moom itam ci àllaaxira ndax te wóor na ko ne àllaaxira dana ñëw te dana fa dem te yàlla dana ko fay li mu doon def kon du lor dëkkandoom ndax day xam ne loolu da ko indil jafe-jafe bu ëllëgee mu ne man kaana yuminu billaahi wa malaaxi fal yukrim dayfahu ku gëm yàlla gëm bis mujj ba nay teral gan ndax teral gan daa am tuyaaba ju baree bari ak yiw boo ku koy def boo ëllëgee yàlla da lay fay te ki gëm na yàlla na ko fay bu ëllëgee kon lu koy may tuyaaba da cay farlu te loolu bokk na ci lii maye tuyaaba ju bari nga gis ne kon ku gëm yàlla daal gëm bis mu mujj ba loolu dana jeexital ci dundam ba am nu muy doxe ak nu dul doxe kon day tax nit ki jub day tax mu maandu day tax mu farlu day tax mu am fayda day tax mu sori lépp loo xam ne ak neen la waaye noonu nga xam noonu la gëm bis bu mujj ba di jeexitale nag ci ki ko gëm ki ko gëmul moom safaan ba lay doon ku gëmul bis bu mujj ba mbaa gëm gi ko gëm dëgërut ci moom kooka moom day boyal bakkanam lu ko neex def mel ni bàyyi ma rek di jëf-jëf yu jëfi ñaawteef te jëfi ñaawteef yi du ca gis lu aay du ca lu aay ndax day jàpp ne lor du ko ci dikkal ëllëg ndax gëmut ëllëg ci moom xam ne moom bu rëccee tey rek bu ko wóoree lii mu def mën naa fi def pexe ba rëcc ci ba kenn du ko ci teg yenn daan rek ëllëg moom ginnaaw gëmu ko waaw du ko tee bàyyi ëllëg du ko taxa bàyyi xel ëllëg du ko tee def dara lu bon moo tax day daal di boyal bakkanam rek lu ko neex def la muy moytu daal xanaa mooy ñu jàpp ko ci àdduna ci jëfam jum def ñu di ko ca teg ay daan rek waaye bu xamee ne mën na caa rëcc rek euh, man da koy day def lu ko neex bu tax alxuraan di wax ne inna allazina laa yuminuuna bil axirati zayyannaa lahumu amalahum wa hum yaamahuun ñi nga xam ne dañoo gëmul alaxira dañuy sax ci jëf ju bon te loolee duñ ca gis dara ay aay bu ko defee nag nuur ca rek sax ca rek nekk ca ba faatu dikkal leen ulaika allazina lahum suul azabi wa hum fi l axirati humul axsaruun ñooñu nag nga xam ne gëmuñu àllaaxira ba tax lu we neex def ñooñu moom bugal mu naqari lool te tar moo leen di ñoo moo mooy leen dal ëllëg te bu ëllëgee ñooy doon ña ña perte gis nga kon day jural doxin wu ñaaw fii ci àdduna jural leen nag mbugal ak fitna ci àllaaxira kon ñàkk gëm gëm bis bu mujj bam wala gëm bu dëgërut gëm ko gëm goo xam dëgërut xam ne daanaka rek jàpp nga ne gëm nga ko nii rek waye daal wóoru la du la tax a def du la tax a ba loolu kon day tax nit ki di jub moo tax alxuraan di wax ne ñi nga xam ne dañoo gëmul ëllëg dañuy bew inna lazina laa yoon liqaana fii tuxyaanihim yaamahuun ne ñi nga xam ne gëmuñu ne danañ dajeeg ñun yàlla ñi gëmul ne danañ dajeeg yàlla danañ faatu dekki dajeeg yàlla mu fay leen ñi gëmul loolu nee na dañuy nuur rek dañuy sax rek ci bew te duñ ca faale dara ñu amee kàttan am doole daal am sañ-sañ dañuy ñaaj rek lu leen neex teg doomu aadama yi lu leen neex def ci lu ci ci ci ay lor ak safaan ak ak ki ndax bew gu ñuy bew loolu kon bew googu ak rëy rëylu googu daa bokk ci melokaan yi ku gëmul alaxira ku gëmul alaxira sax dootu gëmati dara far dootu gëmati dara lépp lu ñu war a gëm rek ak ay ak ay la koy def ak caaxaan moo tax foo leen fekk dañuy wax wax waxi waxi ku am ku gëmul dara wa qaala alladina laa yarjuuna liqaana lawla unzila alayna almalaikatu aw nare rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw tuwan kabira mu ne ñi nga xam ne gëmuñu ne dañ dajeg yàlla buñ leen day wax mbiri ëllëg del wax mbiri malaaka ak lay xew dañuy reetaan naan ah waaye yéen yàlla mi ngeen di wax ne am na wan leen ñu ko ñu gis wan leen ñu yàlla wala ah, malaaka yi ngeen di wax anañu waaye suñu boom nee na day ñoo ñu nga xam dañu réeréeru bew ngir ñàkk gam ëllëg bis buñ jàkkaarloog malaaka moom mu leen muy jël si seen ruu ñu xam ne lañ doon wedd lépp dëgg la su keroogee day ñu ñu mu ñu ñu dox seen digganteeg malaaka ba dootuñu ko gisat rek la ñuy bëgg te boobaa loolu du am ko defee nag ñu e, lañ doon def lépp daal di mujj nekk ak neen lañ doon def ci lu baax lekk ak neen lañ doon def ci musiba yi nag moom topp leen ñu daal nekk ci tiis wu rëy moo tax mu ne ñi nga xam ne gëmuñu àllaaxira ay tooñkat la ñuy doon dañuy jalgati àq nit ñi di faat bakkan yi di jalgati alal yi di yàq der nit ñi di yee na lu ne lu bon la ñu ko def ndax gëmuñu ne lii ñuy def am na lu leen ci naar dikkal bu ëllëgee waylun yawma izin lil mukazzibin allazina yukazzibu bi yawmi diin maa yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim waaw kon ñàkk gëm bis bu mujj ba day jural nit ki dootu gëmati dara lépp ay reer la koy def ak caaxaan lu ko neex rek ci ci dundam dëppoog bakkanam mu def ko te du ca gis dara lu lu aay te du ca séntu dara ci lu ko cay toppee boo mu nekk ku bew nekk ku mën a jalgati ku mën a tooñ nit ñi ku leen di jural fitna di ku bari bàkkaar te loolu kon bu ëllëgee eh, ci safan ba la koy jëmale kon boog di bat fàttali ku ëllëg te di wëral wëral gëm te am ci yàqin nag xam na lu wér la nag lu am la ndax ku gëmul alaxira itam nag du tee mu dem fa moom te bis bu demee nag te gëmu ko woon mbett mu rëy lay am ak jafe-jafe moo tax ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla weddi dekki weddi yamal xiyaam bis bu bis penc bi ñu leen dekkalee dañ naan yaa waylana man ba'asana min marqadina waaw ñun de ñun de alku nañ waaw ñun ku ñu ku ñu dekkal ci nelaw yi ñu doon def sax daal ne ndekete lii mooy la ñu yonent yi daan wax de bis bi ñu daan wax te ñu defoon ko yàlla ndekete mooy lii ndeke am na ndekete yonent yi waxoon nañ dëgg waaw yonent yi waxoon nañ dëgg de waaye lañ leen doon wax lépp gëmuñu ko woon toppuñu ko woon léegi nag pay ga taxaw na ñu am jafe-jafe ak mbett mu rëy rëy rëy kon nag loolu yàlla nañ ci yàlla musal kon nañuy bàyyi xel ci ëllëg te xam ne luy ñëw la di xool lépp lu ñuy wax ak lépp lu ñuy def euh, ba bu ëllëgee ñu mën faa jariñu tamit faa loroo kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 alhamdulilah alladi ahaata bi kulli cheyin ilma wa axsa kulla cheyin adada alladi faddala chahra rajab wa awjaba alayna tahdimahu fa wajab wa awjaba alayna tahdimahu fa wajab أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره وأتوب إليه متوكلا عليه معتمدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين أبدا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وأحذركم عن الخطايا كي تنالوا الخيرات والهدى وأكثروا في هذا الشهر من الصيام وقوموا في ظلام الليل والناس نيام هنيئا لمن عمل وجد فيه مجتهدا ألم يان للأذن الصماء أن تسمع ألم يان للطرف الجانب أن يدمع ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وهذا ألم تعلم أن رجبا أول شهور الفضائل جعله الله للخيرات موردا وفي الحديث إن الدعاء في رجب مستجاب ربنا آتنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله الذي حض على التقوى ووصى وأحاط بكل شيء علما وأحصى وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم وأسرى بنبيه ليلا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته فضائل لا تحد لا تعد ولا تحصى أما بعد الله الله عباد الله اتقوا الله وحافظوا rahimakumullah ala salawaati wa amalul xayra wa inna xayra amalikum assalaa wa inni axsha alaykum wa inni axsha alayya wa alaykum an takunu mimman qaala fihim maqaalan yatta'izu به من كان قلبه حيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وفي الحديث الصلاة عماد الدين wa man aqaamaha faqad aqaama diin wa man tarakaha faqad hadama diin yaxfirullahu lana wa lakum wa lisaa'iril muslimiin amiin allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammad rasulullah hayya ala salaat hayya ala falah qad qaamat salaat allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah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 تشابهون الله أكبر الله أكبر سمع الله ربنا الله asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.